kon loola adversaire politique bu gênant bu taxee ñu bëgg koo faagaagal di andi boobul wax damay taxaw lànk wut ku ma kon ba tëdd ku dem ci plateau yi défendre Ousmane Sonko ku toog yaa nga koy ñaanal bu ñëwee Bambey day mel ni fa la dëkk jibi mi ya koy tooñ jibee naan bu ñëwee Bambey kenn du ko yee ndax day tëdd ba fàtte ay borom waaw parce que garde corps yaa ngi fii mais maa leen gën a efficace ci moom parce que xol mooy garde kon loolu ma def bu leen neexoon jàpp ci seen jàmbur mais da ngeen ci ànd ak man kon yéen ànd saxal liggéey mënuma leen a fay te ñun nag loolu mooy suñu ànd ñun ci yeewi askan wi te nag day weex rek waaye du xeex mukk kon nañu woote jàmm rek nañu ànd rek te bu kenn wax looy réccu bu ëllëgee ndax ay diggante day am ndey ak doom sax dañuy am mu mu ñagas jëkkër ak jabar léeg-léeg ñu ànd mu ñagas waaye nag buñ ko dépassé rek dépassé nañ